Bijouterie Sam Sam chez Dia di jaay ay or chaîne bague ak yeneen i xeetu accessoire yoo leen di gisati feneen bijouterie Zamzam 1 yamul ci jaay ay or kese mën nga fa fekk itam ay bijoux en argent tout genre ak motif boo mënti soxla mu ngi ci marché Tilène ci rue 19 angle Blaise Diagne Dakar Sénégal bu dem bi jàppandiwul jëlal gaaw numéro yu ma lay limal nga woote ci ci 77 693 64 64 77 447 61 46 77 669 80 69 wala ngeen message leen ci seen Instagram Snapchat ba ci Facebook ndax dañu méngoo ak jamono. bijouterie zamzam point com itam ngeen fa duggee lépp lu leen yitteel danañ leen ko daal di toppatool ba mu daal di yemm bu boutique ji bëgg tam classe bijouterie zamzam un kese laa ci wóolu. gis nga jibi damay wax ni boo désee théâtre yàlla ne jigéen ju la lewul waroo koo jox loxo. ngay gisee théâtre yamoo ci nga dem bay tëdd ak benn jigéen ci benn lal ñu caméra leen yamoo leen ci ñu sàng leen ngeen di théâtre ngeen di def te ngeen di jullit yàlla dencal na leen feebar boo xam ni balaa ngeen di faatu adduna bi yëpp dina njëg ni da ngeen a feebar leen xaalis ngeen doog a wuyu seen borom yàlla dafa mat. ah kon ñun acteurs yi di kii li ñuy fowe nii ñu jural ay kii. boo dee jullit nga tourné clip. Mhm. bokk ko ak benn xale bu jigéen bu dul sa soxna. Mhm. yàlla ni yow jullit nga tere naa la jox loxo waxatuma xaw ma keneen ki lan la de mais ngeen tourné yéen ñaar benn émission nga kottu ko ci émission bi te du sa jabar jël sa loos teg ci loosam yàlla ni la yow ma lay tere ba ni la nëbbatul nga fésal ko ba àdduna jot ci nga ni clip ngay def mhm. balaa ngay dee dinaa la teg feebar ba àdduna xam ni feebar nga man yàlla ak maamat allahu akbar ñaata jullit ñooy tourné kilip mbay bari nañ ñu ne ay jullit la bul nuyu jigéen dafa araam ci yow yow yamoo ci nuyu bi mais nga akolaat ko mhm. tourné ndoom ak moom euh, film mhm. wala clip dugg yéen ñaar ci benn piscine te lew la ñu ne mannequin la lii mooy métier am yàlla ni la liimoy mooy métier tama tere la ko comme yaa ko def nag te man yàlla maa ni tere naa ko faw ma teg leen feebar boo xam ni balaa ngeen di dee di ngeen ñam fii buñ dajee fee mu gën a neex kon ne man neen a ñam a ah, ak nooy ñamee it de. <laughs> kon yow saas man dinaa ñam. <laughs> tuuba ngi fi <laughs> waaw. ba surutu tawbati an nadamu mhm. ala ma faata wa niyatu ala yahuda ila zanbi fi ma baqiya min umrin parce que ñaanal yàlla nag balaa ngay dee màgget mhm. parce que am xam ne aas lay laaj mhm. boo fa tolloon yàlla bàyyi naa ko maa ngi lay ñaan dootuma ci dellooti mhm. yaa ma bind ma bàyyi ko ci biiru ndey juróom-ñeenti weer nga nëbbu ma fa mhm. li ma doon lekk yow dong yaa ma ko doon jox mhm. bi ma tollee ci jigéen meew génn ci yaa may dëgër waaye ñaari tànk lii laa nekkoon jóge naa ci xam nga sama démb xam nga sama tey man ak yow dañoo ba yowmal xiyaam maa ngi nekk ak yow ci biir bàmmeel yàlla ma war faa wéet man ak yow ni ma wéete woon ak yow ci biiru ndey bàyyi naa nangam dellu naa ci nangam dootuma dellu ci lii yàlla ni la البر والبحر yaa oustaz euh, am na loo xamante ni nag duñ jóge fi duñ ñëw fii ba jóge fi te waxtaanuñ ci parce que gis nañ sa boo xamante ni partout euh, sur les mi ngi def buzz euh, ñenn ñi sax ñee nañ oustaz yi dañuy dañuy dañuy affiché indo dawal kabooy waaye ñun ñi nga xamante ni xam nañ la fréquenté nañ la gis ñu lool ci yow ba ñenn sax ci commentaire yi ñi ngi ñi ngi wax ay kàddu yu ñaaw oustaz loolu lan ngay tontu ñi nga xamante ni ñoo ci nekk di wax waa daf ma jàngal àdduna rek daf ma wan ni gëm naa ni noon am na. Mhm. ndax am na koo xamante ni kon loolu lay xaar ci yow donte du yow. dëgg la mu ngi xaar ci yow chaque jour jonkan di xaar yow nga jaaxaan kooku yeewaat na la waaye am na koo xam ni xamoo ko sax te mu ngi def vidéo naan moom laa ko tegoon waaye du moom. Mhm. mi ngi lay tontul te tontu woo ci. Mhm. te démb ba tey site internet yi mel ni mu laa ci waxal te ñëpp ngi may woo. wallaahi ñaata yoon laa la may ma may ma may ma damaa jàpp. bari na damaa dem ba am ci kersa. parce que lii du tuuma. mooy. ñu indi la ci dara mais lii du du du jaawale la mm-hmm. nit ki mu ngi mbàkke mm-hmm. oustaz Mouhamed Mbaye mu nekk xale feccul mm-hmm. di màgg feccul di ànd ak sëriñ si feccul ba dugg ci télé bëgg a fecc loolu mënta nekk ñaaret bi doomu géwal la waaye sama baay nitu alquran la sama yaay nit ku nit xam nga sama baay lan la joxoon sama wayjur wu jigéen premier cadeau kaamilu alquran allahu akbar la sama baay joxe sama yaay xam nga kën mooy njëkkeem yàlla bi muy jugee Ndóomóor di ñëw Ndakaaru rue 15 booba sama yaay yaayam génn na àdduna sama baay kaamilu alxuraan la joxe sama nday la la jox sama nday première kadoom bi mu ko ko joxee sama maam ni ko lenn dong laa ci bëgg bu ëllëgee mu am doom joo xam ne alxuraan dina ko tiitaroo wala diine mhm. sama ndey bi muy ñëw sama baay ni ko sama sama ndey ni ko sama maam ni jël naa yàlla def ko muy sa premier njëkke sama yaay bi muy ñëw ri 15 yàllaay premier njëkkeem incha allah loolu yàlla fay ba mu am bi fecc ma waaw ñëpp mais xam nga lu tax sonalu ma uh-huh. mais nag stressé naa parce que bi ma koy wax maa ngi maa ngi maa ngi nu mu tudd Magic Land uh-huh. benn mbàkke mbàkke bu baax ku am teraanga sopp ma lool invité ma dama jël kuddu gi ba teg ku ne Europe woo ma ña ma oustaz sa vidéo bi gars yi waroon nañ ko waru waruñoo bàyyi ba ngay fecc ñu koy vidéo ma ni man man ma ni du man mais sama xel dallu parce que àdduna moom xaaral lépp waaw ma toog tuuti Demba Gissé uh-huh. musicien Demba Gissé sama xarit woo ma sama xarit la ni ma oustaz oustaz sa vidéo baa ngi toj àdduna bi man ko vidéo mu ne ma oustaz dugal tiktok mais nit bu jaxasoo yi ma dugg tiktok gisuma lu xew ma toog ba ci yàgg dem ma envoyé ma ko mhm. ma xool après daal di reetaan daal ne ah heureusement comme lii la mhm. nit ñi commencé di ma yónnee di ma yónnee sama sëriñ laa ko njëkk a yónnee mhm. woo ko téléphone ni ko sang bi xam na ni ma la jegee du ñàkk vidéo bi ñu bari dinañ foog ni man la mhm. pour lay bi gën a yomb ni ko kii benn euh, dija la bu nekk euh, dëkk sangam. Mhm. pour boo ci jotee xam naa nit ñi ngay wax nga leen du Mouhamed daan duróog moom rek continuer mhm. sama programme macha allah yéen laa ci doog a waxal ma ko sikk xamal tax du ma ko sikk yéreem la moo ko moom dàllam la moo ko moom ay veeram la moo ko moom mbaxaneem la moo ko moom mu sol solo gaam nuyu ñu ni dama kaa war a woo ko li may def neexuma xanaa kon man maanduuma waaw maa moom yére bi wala moo ko moom moom moo ko moom moo moom mbaxaneem moom léppam li mu sol yëpp mooy borom waaw ñu bëgg a tourné ni ma naa ko woo yónnee ma numéro am leen du ma ko woo mhm. parce que li sol moom la neex mhm. sànq gis naa may def émission ñu woo ko mu ne mu kafree ne oustaz maa ko may buzz waaye moom maa ko dimbali <laughs> ndax ñëpp sama tur la ñuy wax ba tey xamuñu turam <laughs> uh-huh. waaye dama ko sant yàlla jàng ci ni mhm. sama doom bu jigéen sama taaw sama xarit la sama féete la Marème mu ne ma papa vidéo bi yow la ma ne ko Marème bi nga juddoo ba tey da nga ma xam ci ñàkk fayda mënoo jigéen uh-huh. ni ma papa yow la ma ne ko Marème bi ma bi nga juddoo ba tey da nga ma xam ci lu ñàkk fayda sama doom 13 ans la am macha allah damay ñaan yàlla dem rek wax naa ko ko 13 ans uh-huh. parce que gis nga tubaab buy communiquer ak doomam du ko yuuxu uh-huh. daf koy daf koy teg ci kanamam ma ne ko gis nga vidéo bi Marème xool ko ni ma ah du yow kay papa ma ne ko yaa ngi màgg te xale bu jigéen nga te yaay sama taaw man ko gis nga video bi ni mu gaawee ëllëg boo defee benn fautif nii lay gaawee ñu ne doomu Mouhamed Mbaye loolu nag ma koy bàyyil xel ci sa dund yow yaa ma jaaxal parce que pas doom bu góor bi mhm. wax moom attentivement mhm. ni ko bëgguma sax nga ut dara ci doomu aadama mhm. yàlla seede na ko ak yonent bi iPhone laa ko jëndal man ko yow kese yaa ko am ci kër gi li bëgg mooy bëgguma dara fees sa jàng rek laa bëgg nga def ko ak di moytu parce que bu doon maa fecc nga génn ci biti rek doo Nabi Cargo GP adduna yéen ñëpp dégg ngeen Nabi Cargo yéen ñii fii ci Sénégal mooy jël seen bagage yóbbu ko états lépp lu ngeen bëgg yóbbu États-Unis ci diir bu gaaw fépp nag ci biir États-Unis laa la wax de noonu la Nabi Cargo taxawee te li mu lay yóbbul du am benn problème da la ko yóbbul États-Unis ba ci état yi New York Ohio Atlanta Californie waaw waaw li ko tàmbalee un kilo ba une tonne loo bëgg yóbbu états Nabi Cargo mi ngi taxaw te bu dee enveloppe fay te laaj ma lu gën a neex sa bagage bu yegsee ci ngay soog a fay gaaw leen te gaaw Nabi Cargo GP dina indi tamit ay bagage ci réew yi nga xam ne moo ñu wër yépp Gambie Mali Mauritanie wala boog Ghana ah Nabi Cargo mooy yóbbu sa bagage yi fa ko bëggee ca états